dal leen ak jàmm rangu mi doon rangi-rangi ci réseaux sociaux yi waa division des investigations criminelles rang nañ commando di jëmale ko ca prison Fatoumata Bari alias rangu nag ab yendu parti la doon organisé ci jamono joo xamante ni bépp rassemblement dañ koy tere ci biir réew mi ndax xeex coronavirus ki ay minute rek ginnaaw ba yendu boobee commencé foofe ca hôtel Ngor timis ci la xale bu jigéen bi di rangu dal di publier ab vidéo ci Instagram te boobee vidéo nag ñu mën ci gis ay xale yu jigéen waaye tamit ay invité yoo xamante ni commencé na woon nañ ci ñëw benn par benn vidéo boobee mu dugal nag moo mujjee daal di ci loxoy policier yu cybercriminalité yu réewum Sénégal daanaka ay waxtu rek lañ ci teg quoi division des investigations criminelles dal di agsi foofee rangu dal di ba mu di hôtel ba nekk ca Ngor waaye takku der yi nag naka rek ca bërëb ba dañoo daal di tas li nga xamante ni moo di fête bi dal di jàpp ña fa nekkoon ñoom ñëpp yóbbu li tax nag ba waa dig daal di intervenir moo di état d'urgence bi nga xamante ni décrété nañ ko ci biir réew mi ba tax bépp rassemblement dañ ko fi tere jamono ji nag ñoom ñi nga xamante ni ñoo fa nekkoon ci yendu privé boobee te ñu teg leen loxo ñoom ñëpp ñu ngi ci loxo yi waa division des investigations criminelles ci fàttali nag lu yàggul dara kii di rangu enquêteurs yi ñu ngi ko doon wër ndax kat waa ONG Jamra te Mamatar Gueye daat koy jiite dañ ko porté woon plainte ngir outrage au bonne marche ginnaaw bi mu fi organisé woon rek ab soirée privée boobu lay soirée privée nag entrée ba deux cent mille woon mu ngi xewe woon ci benn lieu boo xamante ni kenn xamut fu mu nekk ci ndakaaru njaay te boobu lay soirée nag kii di rangu amaloon na ci ay affiche yoo xamante ni ay xale yu jigéen yu sumeeku ba set daanaka def yaram mu neen ñoo ca nekk yooyee affiche nag daal di juróon ak coow lu rëy ci réewum Sénégal ba tax waa ONG Jamra daal di koy porté woon plainte ki di rangu mujje woon na sax doon baalu sénégalais yi ak waa ONG Jamra ak Mame Mactar Gueye mi nga xamante ni jotoon na ko tuumaal naan da doon ñëw këram di fa lekk ay suppu kanja wala sax mu fay naan ay njaari soow bile na nag rangu ak ay ñoñam duñ si génnee noonu ndax dañoo ni lu dépassé les bornes